laylatul mawlidi lasi kana lidi ne sororon bi yawmihi wa ziha للخلق رحمة ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وضحاه صل يا ربنا وصل ولما وللخلق رحمة ليلة المولد الذي كان لدين سرور بيومه وضحاه صلي يا ربنا وسلم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 wal kawnu qaatibatan min nuurihi zahara ani an li ibrahima laaha xidaaluhu xidaalun bada li nazirina jamaaluhu xidaalun rabiin fihi jaa muhammadun fatamalana albusra wa amma nawalu asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mboolem ñu ngi seetaan den ndokkeel ci gàmmu gi di jiital ci nuyoo bi walaay al xalifa cheikh Mouhamadul Mahi cheikh Ibrahima Niass xaadimul umma di ci teg sëriñ bi Mawlaaya Xadimu Salaam Cheikh Moustapha Ousseynou Aboubacar Abdoulaye Niass ñaan yàlla yàlla sàmm ko te dëgëral ko di ndokkeel yi tamit ci weeru soppeem bi lii ñuy def nag ñu ngi koy def ci ndigalu sëriñ bi comme ni ngeen ko xamee at bu nekk ci gàmmu yi muy ay social yoo xam ne dana bàyyeekoo ci moom jëm ci mbokk yi jëm ci association yi nga xam ne ñu ci dëkk bi nga xam ne lépp dafay jëm ci taaral gan yi nga xam ne ñooy gani Mawlana Cheikh Ibrahim nga xam ne moom miin nañ ko ci loolu lu yàgg nga xam ne loxoom du jug mukk ci activité yu mel nii jëm ci xadara bi Cheikh Ibrahim bi ni ngeen gisee noonu am yi nga xam ne mooy saaku ceeb yi nga xam ne mu ngi sama ginnaaw nii di ay ton nga xam ne njëkk ba bam ñu joxee ndigal ñu jiitu ci dëkk bi waxtu bu nekk jour bu ne liy jaar suñu loxo jëm ci yenn yi nga xam ne ñooy association yi moo xam xaalis wala ak yeneen ak yoo xam ne lu bëri loo xam ne mu ngi jaar ci sama loxo bii di jëm ci ñooñ tey nag mu nekk ay ceeb yi nga xam ne war nañ ko séddale ñenn ci nga xam ne ñooy ay bàjjanam di doomi Cheikh Ibrahima yi ak doomi alxaaji Aboubacar alxaaji Abdullahi ñas ak yenn ci association yi nga xam ne ñoom itamit war nañ leen a jox ceeb bi ak ñeneen ci ci jaamu yàlla yi ci mbokk yi noonu lañ koy defee ci ndigalam te ñëpp xamee nañ ko ko muy sëriñ bi Mawlaay Xadimu Salaam Cheikh Moustapha Ousseynou Aboubacar Abdoulaye Niass a yàlla yàlla sàmm ko te dëgëral ko lépp lu mën ren bu déwénee mu mën lu ko ëpp jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullah laylatul mawlidi lasi kaana lidi ne sororon bi yawmihi wa zihaa والعلم هو للخلق رحمة وزواء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وضحاء صل يا ربنا وصل ولما وللخلق رحمة ليلة المولد الذي كان لدين سرور بيومه وضحاه صل يا ربنا وصل على ما هو للخلق رحمة وتوالى البزر الهوات بأنقار ولد المصطفى وهاك الهماء